réclamé en faveur de la démocratie tey ñu libéré ko tey lan moo nekk sa première réaction. waaw am na mbégte bu baax ci ma déggee ñu ne bàyyi nañ ko mu jógee hôpital dem këram. Euh, ni noonu tamit gis naa ñu bàyyi euh, Abdou Karim Gueye xorom xàq ak euh, Cheikh Omar Diagne ñu bàyyi leen ñoom ñëpp ñu delluwaat seen kër di ñaan tamit euh, mel ni Papito Kara ak euh, Ousmane Diagne jàpp naa ne ci ñu ñu war a bàyyi lañ bokk. ku mel ne tamit force spéciale ñi ñuy wooyee force spéciale mm, muy ñoom Ami Dia ak Pape Mamadou Seck ak. ñuy wooyee force spéciale mm, muy ñoom Ami Dia ak Pape Mamadou ñooñu. Euh, ñoom itam bëggoon nañu bàyyi leen parce que boo demee Mali sax ñi nga xam ne vrai force spéciale lañ. te jëloon avion nekkoon quarante quelques personnes jóge woon Côte d'Ivoire ñëw at ñëw ci dëkku jàmbur euh, doon fa jéem ay lëjël ba jàpp leen euh, mujj nañu gracier leen ñoom ñëpp bàyyi leen Assimi Goïta bàyyi na leen ba ñibbiwaat Côte d'Ivoire liñ delluwaatee Alassane Ouattara recevoir na leen Erfolg ist immer eine Mischung aus vielen Faktoren. Es gehört mit Sicherheit eine Portion Glück. Ähm. donc kon comme que force spéciale vrai lañ fi te biñ leen di jàpp ñooñu. Hmm. fekk na suñ force spéciale yi nekk ci kaso bi. dem nañ ba bàyyi leen force spéciale yi nekk ci kaso bi te loo ci xool mooy ñi leen jàppoon maanaam duñ sax ay seen bokkuñu sax ay ay réew. bokkuñu nationalité. dañu jóge Côte d'Ivoire wàcc Mali. te cas yooyu moo gën a graaw sax. <coughs> ah loolu kay lu ko gën a graaw amul. Mhm. jël avion ñëw ci réewu jàmbur. mu wóor na ne ci déstabiliser réew mi nga bëggoon a nekk. ci lu leer ñu jàpp la ci lu leer bi leen àttee vingt ans lañ leen àtte tëj leen. Mhm. mais pour bëgg jàmm ak euh, ni ci Afrique taxawee parce que Faure Gnassingbé dem na fa. Embalo euh, dem na fa. Mhm. Euh, ba ci Macky Sall mii ñëpp ba ci Adama Barrow ñëpp dem nañ Guinée dem nañ jóge nañ euh, seen dëkk dem Mali pour ñaan njekk pour ñu bàyyi ñooñu Assis Mone moom dafa respecté li yoon wax mooy tant que atte leen ba tëj leen li nga ba nga xam ne moom am na droit grâce leen mënu ci dara bu ci dugg mm. bi leen yoon attee ba wax ne vingt ans la leen tëj ci la nag jël dogal ne moom grâce yéen leen loolu bu ko defee da ngay xam ne dafa bëgg diplomatie bi jaar yoon waaye nag nit moo mën a jóge ci réewum jàmbur. dugg ci réewum jàmbur. di ko jéem a déstabiliser bañ jàpp ko te bañ leen di jàpp fekk na ñoom ami jami ci kaso bi. lijjanti nañ seen problème ba bàyyi leen bañ ñibbi ñu bàyyiwaat ñoom ami ja ci kaso bi. te ñii sénégalais la ak sénégalais gendarme yi leen jàpp juge bi leen topp président de la république bi ñoom ci seen bopp ñoom ñëpp ñun ñëpp entre Sénégal la jàpp naa ne coxor googu ak dëgër googu euh, kenn waru ko mën a am te boo xoolee dëgg-dëgg man bi ma gisee ñu bàyyi force spéciale u Mali yi rek dama xam ne nag wax dëgg yàlla Sénégal daal ñàkk yërmande dañ naan dëkku teraanga la ñoom dëkku yërmande loolu moom man maa ngi ciy bëgg a mettre en cause euh, xaw ma mettre en cause lañ koy xaw ma daal mi ngi may bëgg a jaaxal parce que jàpp naa ne dëkku yërmande mënuñu fa téye ay doomu aadama ami jaman dem naa ba këram seeti ko seeti yaayam fekk fa ay doomam ay rakkam ña nga toog ma yëkkati la ma am jox leen te xam naa ne na ma ko na ma leen gisee euh, Amidia am na fu mu leen féete woon parce que moom moo doon liggéey. man ak Assad Diouf ñoo ko àndoon ak Xorey si Thiam. Euh, ñu dem siyaare leen parce que ma xool niñ toogee. Mm-hmm. mais li ngay yëg rek mooy euh, senegal daal yoon amu fi dara amu fi. loolu nag moom laay indiwaat rek ci jàpp Pape Alé Niang bi ak Baye bi parce que jàpp Pape Alé moom su fekkee bëgg nga dégg dégg mooy li tax ñu jàpp Pape ale ñu bari xamuñu ko li taxoon ñu jàpp ko dëgg lan mooy cause jàpp bi. Mm-hmm. ñu baree bari ci réew mi xamuñu ko. ñu ngi doon wax wàllu euh, rapport gendarme. dama ne rapport gendarme bi état reconnaître ne moo ko moom bu ko reconnaître leneen day xew. Mm-hmm. mi ngi mel ne nga waddal fii calpe ñu tijji ko fekk ci yàmba. Mm-hmm. waaw même nga man nga koo moom mais doo ñemee réclamer ne maa ko moom. donc kon rapport boobu état nanguwul ne moo ko moom ba bëgg ni wax ne kon da ko feeñal ma ko ci jàpp. soo jëloon waa APR yi wër tele yi naan Pape Alé dafa tooñ dafa tooñ kenn ku nekk nga dugal ko ci benn néeg ni ko bindal ma fii benn rapport lan la Pape Alé def bañ tëj ko soo génnee fukki rapport yi ñu bind benn du nuroog morom ci nit ñi xamuñu lan moo tax ñu tëj Pape Alé. lu waral attitude boobu ci. ah am na lu nga xam ne loo si xam sax doo ko doo ko mën a wax parce que ndegam ñi koy film la boo xam ne. Hmm. mi ngi mel ne ñun ñaar ñi ñi ñuy seetaan fii ne mënuñoo gis caméra yi. waaw caméra bi leen koy wan gisuñu ko comme que coow la loo xam ne ñaar ñu ko seq kenn waxul ndax man li ma gëm mooy Pape Alé te ma dégg ko te xam naa ne am na mooy dem na dem na Mermoz seeti président Macky Sall ak soxnaam ci loo xam ne ñoom ñoo ko sàkku ci moom ay xarit lañ Pape Alé journaliste la amul ku mu wër a toogal ci réew mi dem na fa ba ñibbisi après ñu topp ko lan moo tax ñu topp ko loolu xaw ma waaw lu taxoon ñu bàyyi ko première bàyyi kenn xamu ko wala boog ñi ko xam ñëpp waxuñu ko de lan moo tax ñu lever waat ko euh, sous contrôle judiciaire bi jëliwaat ko ah ñu bari xam nañ ko waaye ñu bari waxuñu ko de. nee dañu dafa violé. Euh, non doo dégg ko ne la baat bii la wax te waru ko woon wax. Mollah Morgun moo ko woo. Mhm. muy wax te jàpp naa ne lam doon wax bu fekkente ne dañuy lever humidité par dañoo bëgg a dindi dindiwaat révoqué. Euh, sous contrôle judiciaire bi. Mhm. waroon nañ nag utiliser na fa mot bi ak moo bi ak mot bi amul kenn ku la mën a wax ne mot bii la wax bañ jëliwaat ko waaw loolu moom man maa la ko wax. ndax xam bi mu attaqué woon. Sonko bi Sonko mi ngi sous contrôle judiciaire ñaata yoon lay def ay ay ay conférence de presse. di wër réew mi di campagne mën nañ ko méngale. mi ngi def ay conférence de presse am di wax Ndeye Khady Ndiaye mi ngi koy def. Mhm. Ndiaga Ndour mi ngi dugg ak génn fu bëgg a dem réew mi ñi fi nekk sous contrôle judiciaire dafa bari. gisoo ci mosoo gis sax yow. Hmm. kuñ may sous contrôle judiciaire dindiwaat ko. donc mooy li xew dëgg-dëgg ñun xamuñu ko. Hmm. wala boog ñu ko xam waxuñu ko. man nag dernier jàppam bi jàpp naa ne ci sama xalaat. Hmm. li mu wax ci commissaire yàgg bu gendarmerie yaakaar naa loolu moom baaluñu ko ko daal waaw yàgg bi mu wax ne mi ngi rawale ay njabootam nangam nangam loolu moom jàpp naa ne metti na leen. mais nag li lay wax ne Sénégal amul justice mooy bu fekkee loolu daf leen métti dañoo waroon a dem bàyyi yàgg mu porte ko plainte yaa ngi dégg ñu dem mi ngi mel ne euh, Ousmane Sonko mi ngi sous contrôle judiciaire jote naag Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang ko kon dañ naan dañuy dindi sous contrôle judiciaire bi jëlaat ko yóbbu kaso loolu beneen infraction la mais mënoo ñëw wax rek ñu daal di dem jàppaat benn taxañ taxañ yi rek dem dugalaat ci kaso bi yow journaliste nga doo ma wax lan moo tax ñu liviwaat Euh, sous contrôle judiciaire delluwaat ko ci kaso bi kenn xabu ko Cheikh Omar Diagne ak Karim Xorom Xaq jàpp nañ leen bu leen jàppee ak léegi boo ko xooloon ëpp nañ ñetti weer trois mois mu mat na ko ba ëpp ko bi maam ndaw gaañoo ak léegi ñu jàpp leen bàyyi leen ci kaso bi hmm? yàgg na de waaw yàgg na trop ma trois mois ñu téye leen ci kaso bi ba tey ñu jékki-jékki rek bàyyi leen lan lan moo tax ñu bàyyi la lan moo taxoon ñu jàpp leen jàpp bi ñu jàpp bi ñu leen jàppoon ban intérêt la amal ñun sénégalais yi wala justice bi leen téye dara lu dul jaay doole fekk borom kër bu yor këram yorum njabootam di participer ci économie bi di sax participer ci xelu nit ñi di jàngale Karim Xurum Xaq ku ko xam ak Cheikh Omar Diagne toog ci internet dem ci bokk ci dox dox doxin bu baax ci biir société bi moo tax nit ñi xam ne nga jékki-jékki mu neex la nga jël lem denc toog ba mu neex la rek nga daal di génnewaat sànni comme nit ñi ñun ay mala lañ. mais kàddu yi kàddu euh, la def ba tax ñu yan kàddu yan kàddu lañ yëkkati. ci lu jëm fàtt euh, imam Ndao. déedéet waxul loolu waxul waxul de. li nga xam ne mooy doxalee. waxut loolu Karim Karim bi muy wax daf ne. Mhm. fii la ko waxee woon seexlaan naa ko en direct moom jag bi tey mu ne. Mhm. su deewee génnewu ci loxo Sénégal loxo état bi Sénégal. niroowul ak li mu wax. non la ko waxee woon rek. ne su mu ndaw deewee imaam mi ngi en daanaka coma. bis bu deewee génnewu ma ci état bi. Mhm. loolu rek wax <laughs> mais loolu. Euh, yaakaar naa yow déggal nga loolu sa bopp xool nga ba xam loolu délit la bu ñu war a jàppee ni tëj ko ñetti weer wala déet Cheikh Omar Diagne jàppatuma lu mu wax mais xam naa ne façon bii Omar kii wax rek la wax wala boog nit ku ku am sa nit fonk ko mu faatu sa xol tàng ci tàngaayu xol boobu nga wax mais ba léegi rek man gisuma lu ma ko mën a rapproché ci loi te dama am sax lu may may tooñe suma xarit bii ma àndal mm-hmm. bi ma gisee préfet aaye euh, mitin non mitinu Yewwi Askan Wi jékki-jékki ju gis concert u rap ku bokk ci opposition bi def ko mu aaye ko. nit dof nit dof. moom ak lu lu ma mën a waaye mën a wax mooy mooy nit ku nga xam ne moo war a mujj politique administration la amul benn ndomba tànk politique wala benn xaru kanam politique bu mu war a wan askan. da ngay jàpp ne décision ay décision politique la. waa non yow gisal nga ko sa bopp amul kenn nit kuy nekk Sénégal. ku xamul ne préfet bi li mu wax keroog ci mitinu euh, mars bi yeewi askan wi woote woon maanaam defu ko lu dul faral waa APR. kese sénégalais yëpp xam nañ ne foofu amul ay travaux man maa ngi woon ci mars bu amoon keroog vendredi vendredi la 30 def nañ fa mars. samedi la 31 xanaa kenn liggéeyul bertee liggéeyul hmm? dimanche le premier janvier férié la liggéeyuñ lundi mardi mercredi la préfet jël kii bi xanaa kon deux jours ci la BRT bi avancé moom ba dugg ba dugg foofu quoi deux jours. <laughs> semaine boobu semaine férié la kenn liggéeyul fenn. mais am na foofu. ñaari fan. la travaux yi déplacé fa mu nekk ca RTS. ñëw na ba ba ba ba ba place de l'Obélisque loolu moo lay wax ni kii dafay politique. ab euh, euh, nit dof nit dof amul lenn lu ko topp lu dul lim nekk opposant di ànd ak Ousmane Sonko donc suñ mënee dem ba ñun préfet yi di léegi di politique te nëbbu ñu ñu ko nëbbu ñu ñu ne ñun léegi ñun dañu sol mbubbu politique di politique lii am mooy kon ñun wóolu bi ñu wóolu woon ci état parce que dëkk boo mën a wàcc tey boo wàccoon Louga préfet bi moo fa représenté état moom moom rek nga mën a waxal wax xam ne wax nga ak état Sénégal état boobu bu fekkee dafa sol boobu politique di politique nëbbu la ko donc ñun li ñuy xam mooy tey boo feebaroon yor ordonnance boo génnee pharmacie bii mooy état ci yow ci wàllu faju moom nga mën a wax ne ko kat man sama dënd dafay métti wala sama bopp dafay métti mu jël garab jox la nga ñemee ne kii kat état moo ma ko garantiral nga naan dem sa yoon su fekkee préfet léegi dafay politique dafay mel ne kon mën nañoo dem ba njortu na sax kon ñun mën nañoo d'accord pharmacien boo xam ne danaan kii opposant la xaaral traité ko nii ma jox ko garab yu primé wala xaaral ma nax ko boole ko ci garab yu ci bokkul biiram metti wala dara ba ci noonu ah mais dama ne bu fekkee préfet bi nangu nañ la léegi préfet mi ngi politique suñ doxaatee dix kon xanaa gis pharmacien yu politique mhm. yoo xam ne dañ naan imam ndaw ñëw na wala Abdou Karim Gueye feebar na ñëw na ci ñun non duñ ko faj ni ñu ko war a faje parce que opposant la politique dafa am ñu ko war a def mhm. muy ay politiciens waa administration ñooñu administration lañ xàmmee wuñ couleur parti xàmmee ñoom dëgg lañ xàmmee ak yoon parce que ñoom politique indiwu leen foofu bàyyiwu leen xam naa mais suñ demee ba tey préfet di politique te nëbb ko sénégalais yi xel day ñaaw ci sax lii ñoom Karim Xorom Xaq doon wax nga xam ne bi mu koy wax man toog naa fii ci seen télé ma ne lii ñu wax dafa xaw a man d'accordu ma ñuy am benn soupçon ci état nañ am soupçon ci politique sax yi mais dañu am soupçon ci mais préfet état la pour suñ xel di dal ñu am fit di jëflanteeg état di te bu ñu demee joxe suñu xaalis dugal ko ci compte banque. dugal ko ci dugal ko ci banque bi. ñeme ko ñeme koo utiliser. maanaam yow da jël sa xaalis dem jox ko dem fekk xale bu jigéen boo xam ne xamoo ko. nga fekk ko ci banque bi mu toog nga jox ko sa 2 millions mu jox la benn reçu nga dem sa yoon. parce que am nga état. dangay yor sa oto dem ci benn far euh, station jox ko 10 000 na ko jaay ma essence yow tijji woo fi muy jaayee. foo noo ko xooloo ba xam li mu lay jaay essence la mm-hmm. mais xam nga ne état mi ngi fi kon ñeme nga li état du ma bàyyi kenn di ma def lii mm-hmm. su fekkee ci contexte boobu rek ci la nit di deme hôpital tëdd fa parce que état tax ci la nit di mën a demee stade Iba Mar Diop fay xaalis ne man damay def sama sama cérémonie wax ak préfet parce que état mi ngi fi léegi su fekkee état boobu nag mooy dem bay xàmmee opposant di xàmmee pouvoir ci kanam tuuti kenn dootu ñeme médecin kenn dootu ñeme hôpital kenn dootu ñeme pharmacie kenn dootu ñeme banque kenn dootu ñeme kenn parce que, que li ñuy wax état moom mooy politique. d'accord moo tax li préfet def keroog. Mhm. dafa rëy dafa ëpp. dégg mhm. kon bàyyi gii ñu bàyyi euh, Cheikh Omar Diagne ak kii dafay wane ne Sénégal ñun ci politique lañ nekk nekkuñu ci loi nekkuñu ci dara. Mhm. Pape ale tamit bàyyi gi ñu ko bàyyi nii jàpp bi ñu ko jàpp dafay wane ba léegi rek ñun ci politique pure et lañ nekk politique mooy bëgg yàq réew mi. loolu nag il faut ñu jóge ci. ñii liggéey di <laughs> liggéey ñii politique di politique. ñii politique ku ci juum. boo demee ci kanamu yoon duñ la xàmmee ñu teg ñu ñu jubbanti la soo demee ci administration bi lii sa àq ñu jox la ko bañ xool ban féet ban ndooma tànk politique nga takk c'est ça waaw voilà donc euh, Pape Alé Niang euh, Cheikh Omar Diagne ak Karim Xurum wax euh, juróom benn <coughs> ak Diop buñ boolee voilà ak Diop Taïf ak ñeneen ñi ak ak ak ak Papito Kara ak ñeneen ñi Papito Kara ñu bari rek donc li non nga Diop Euh, juróom benn weer yi mooy li ñu boole woon bu njëkk ak bii. waaw ah, am na ñoo am juróom benn weer kay. ñoom ñoom ñoom ñoom Ousmane Diagne am ñoom kii Ousmane Diagne sax léegi mu am juróom benn weer. depuis mois de mois de ba léegi la. tout à fait donc euh, nekk na lu yàgg loo xam ne euh, ñu nga fa ba tey ba léegi kenn libéré gu leen leneen li Cheikh Bara muy accident bi nga xam ne moo am dimanche. Hmm. fële ca Kaffrine. Euh, nekk loo xam ne dugal na Sénégal ci tiis ba tax jamono bi ñooy wax yow. ñu ngi ci deuil national. Mm-hmm. mu war a jeex euh, suba ci àllarba.